non inscrit ànd ak yàlla te yàllaa fi ne. d'accord alors ma Birame euh, dafa mel ni li ñu doon lu taxoon sénégalais yi bu bëgg vent de changement bu bees a bees ak ce qui se passe au niveau de l'Assemblée entre euh, les anciens alliés euh, Taxawu Sénégal ak le euh, les restes de l'opposition de, de Askan Wi est loolu dafa traduire carrément mais li ñu fiy xeex bu opposition bi ñëwaatee au pouvoir ce la même chose. finalement askan bi au lieu ñu leen dañ leen tënk. Euh, xam nga euh, sénégalais yu bëri quelque part euh, suñu doyalee ci politique bi nangu ñoo déglu acteur politique yi ba leen di wuyu ji c'est parce que quelque part ñoom dañu jàpp ne seeni préoccupation seeni mëbët ak li politiciens yi di wax ak di ko doxe dafa am écart bu mag a mag a mag te xam nga bu ñu ne tey jii nii ñu ngi ci dëkk boo xamante ne nii Euh, opposants yi pour ñu def caravane wut parrainage c' est un problème. Mm-hmm. ñu ne la kaso yi ñu ngi fees dell. ñu la faim sax. mangook ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii yaa ngi ko fi euh, mën nañ ko fi tudd mu nekk ay difficultés yoo xamante ne nii amul kenn ku ñu ko teg ku dul le régime bi nga xamante ne nii moo nekk en place. léegi ma jàpp ne bu nekkee ne am na ñoo xamante ne ni dañoo gisee neneen lu ñu war a doxalee wala d'accorduñu ak ni nga li nga xamante ne nii mooy xew d'accorduñu ak li nga xamante nii moo xew war nañu dans tous les cas constituer un bloc boo xamante ne ni moo leen di mën a permettre kii nga xam régime bii nga xamante ni moo fi nekk te ñu jàpp ne yow yooyu ma lim yépp te normalul moo koy def ñu am doole ak kattan gu ñu ko defee fas mais bu ñu demee ba nga xamante ne nii ñooñu ñu jàpp ne ñoom ñooy opposition bi maanaam ñi war a jàkkaarloog régime bi nga xamante ne nii jàpp naa ne teg na coono yu bari sénégalais yi di fowee démocratie donc opposition boobu bu ñu toogee tey bay xiiroo ak a ŋaayoo yaakaar naa ne non seulement sénégalais yi dinañ am déception mais également dañuy gën a conforter le pouvoir bi nekk en place. tout à fait en en moment su fekkee dañoo nar a ñoom ñëpp a yem est-ce que duñ fi bàyyi ñu fi toog. Euh, mais bien entendu te li ci gën a doy waar man dama lire démb communiqué taxawu Sénégal. bi nga xamante ne nii hmm, defe naa xalifa Sall moo ko signé xaw moo ko bind mais ma am benn phrase boo xamante ne nii daf ma ci capté daf ma capté mu ñu ne en effet des députés de Yewwi Askan Wi ont voulu constituer un groupe parlementaire intégrant les élus de Taxawu Sénégal pour avoir plus de postes dans le bureau mm -hmm. mais sans associer ces derniers dans le partage des responsabilité donc xam nga euh, euh, moom laa doon évoquer ça mhm. euh, mais li ngay dégg mooy partage li ngay dégg mooy <laughs> choix responsabilité donc tey jii nii xëy na ci ñiñ doon gën a xaar loolu maanaam xëccoo ay post maanaam bëgg ay responsabilité ñi nga xamante ni au moins ñu ngi am lu ñuy gérer ñoo nekk ci pouvoir bi. Mhm. mais bu ñu demee tey ba nga xamante ne ni ñii nekk ci nguur gi ni ñuy doxalee baaxul mais ñi ñu yaakaar ne bu ñu jëlee seen place mun nañu constituer une alternative ñu avant même ñuy yegsi ci poste de responsabilité yooyu yaa ngi leen di dégg ñuy wax waxu partage ak waxu choix ça pose problème. te bokk na ci lim tax ma wax sànq ne sénégalais yu bëri bu ñu découragé tey ci politique bi c'est parce que dañu gis ne en définitive les acteurs politiques sénégalais li leen ñor ce n'est pas askan wi mais ay poste de responsabilité yoo xamante nii war nañ koo xëccoo gérer ko ba pare di ci am seeni teraanga mais bu boobaa comme nu ngi koy waxee sànq idéologie amatul principe amatul puisque tey jii nii bu nekkee ne yeewi askan wi dans sa globalité dem nañu ba mu imposer au pouvoir presque une cohabitation. Mhm. nga xamante ni dem nañu. c'est une première mu nekk une première au Sénégal. ma ngoog mosul am ba Sénégal de Sénégal ba léegi. c'est parce que comme ñoom nu ñu ko waxee à travers seen coalition bi nu mu tudd sénégalais yi dañoo gis ne askan wi dañoo gis ne ñiikat dañoo ñëw pour yeewi leen. Mhm. te discours boobu moo tax. élection yi demee nu mu demee élection jaakaar naa législative yi ñu fi mujjee yi fi mujjee am taux de participation bi bien an bien que Yewwi Askan Wi par une part de sa liste bokk ci mhm. mais gëj na am ce qui montre que sénégalais yi élection yi intéressé woon na leen mhm. léegi bu ñu demee voté ji ñi nga xamante ni ñoo ne woon dañuy ñëw yeewi leen ñi nga xamante ni ñoo ne woon dañuy ñëw wàññi difficulté yi nga xamante ne ni wala boog du ñu permettre ti à travers des votes et autres ñu du ñu permettre nguur gi muy dajale daanaka lu mel ne comme scandale bi ñu fi mujjee dégg quarante cinq milliards yu ñu jëndee ay des armes. Mhm. wala ñu ne la député yi daje nañu en catimini daal di voté benn loi sur les OMG nga ne kat député yi su suñu ñëwee xëy na texte yoo xamante ne nii dañuy laqatu di ko voté mhm. wala budget yoo xamante ni dañ koy dégager di ko jëndee ay armes ak leneen ak leneen dootul amati parce que ñoom dañu ñëw pour yeewi askan wi. Mhm. donc tey jii ay question d'actualité jamono ji ñëpp. voilà tey jii nii hausse du prix de l'électricité ñëpp ñu doon doon xaas. voilà tey jii nii soo déggee les discours mais doo jéem a xool Pastef moo am dëgg. doo mhm. jéem a xool yee taxawu askan wi taxawu Sénégal moo am moo moo am dëgg li ngay xool rek mooy yeewi askan wi lan la diggante woon ak sénégalais ba muy dem aux élections locales bi muy dem aux élections législatives te boo gisee ne cohésion bi ñu amoon. tey jii nii amatul daanaka euh, aucun effet da ngay considérer tout simplement que ne askan wi la ñu nax. mais à quel moment moom Birame le futur bi am Aminata mi ngi évoqué sànq mbirum dialogue bi est-ce que ñu bari lu ñu jàpp ni dialogue bi moom moo ñëw indi division wala c'était bien avant. Euh, non euh, mais dialogue bi la xam nga xam nga xam nga yeewu askan wi ñoom ba ñu koy teg dañu ne woon dañuy ànd dem élection locale jóge ci élection locale dem élection législative. ñu ne képp ku bëgg nekk candidat mën nga nekk candidat mais du tere ñoom dañuy constituer un bloc boo xamante ni moo leen di taxa saytu élection yi ba mu jaar ci yoon loolu moo nekkoon seen digaale te loolu wax dëgg yàlla affaireu jarog bokk ci parce que bu ñu demee ba nga xamante ne nii jàpp nañu ne pouvoir bi te mu wone ko nag ba mu leer nañ puisque élection législative yi passé sénégalais yëpp xam nañu ne jaarul yoon buñ la ne la liste de Yewwi Askan Wi mhm. parti titulaire bi dañ ko séparer ak parti suppléant bi mhm. nga xam ne loolu c'est une te fii la xewee Sénégal donc malgré tout ça malgré tout ça ñu dem ba nga xamante ni ñoom dem nañu élection sénégalais yi daanaka plé du ma ne plébiscité leen puisque euh, euh, euh, gagné wuñu mais ñu jox leen lu opposition mosul am au Sénégal. parce qu'ils étaient presque à mais yéen war ngeen a comprendre que ne seen dynamique bi ngeen nekk. maanaam di opposé wu frontalement ak Macky Sall loolu la askan wi di xaar ci yéen loolu moo tax mu voté leen. donc boo leen demee ba ci biir nag bëgg indi ay dialogue d'autant que man je peux comprendre soxna Aminata bu ne. parti socialiste wala Khalifa Sall yàgg na dem dialogue mhm. je suis d'accord dialogue dans une euh, société dans un pays mënul ñàkk mais avec quand même kan ngay dialoguel puisque bu nekkee code consensuel bi nga xamante ni amoon nañ ko en 92 ci Kéba Mbaye mais boobu bay jaloog di am ba muy jur code consensuel boobu c'est parce que ñay dem ci dialogue boobu xamoon nañ ne lépp lu ñu fa wax dañ koy tënk te ki ñuy dialoguel tamit am nañ ci moom confiance de sorte que lu ñu fa munti tënkee wala boog li leen di proposer comme ay thème de discussion du nekk ay ay njuuñ jaaj wala ay ndëgg sërëx donc loolu moo continuer ba en 2011 bi nga xamante ne ni Abdoulaye Wade mu ngi bëgg euh, Ousmane Ngom organiser élection bi mais opposition bi dañoo fippu ci waxtaan la ñu mujjee. Mhm. ba nga xamante ne ni Ousmane Ngom tegee nañ ko ne daal di indi une personnalité neutre mais Macky kooku bu la woowee dialogue yow dialogue bi fii xal euh, du mën a dialogue sax quand il était en prison dem na dialogue malgré du mën a dialogue sax mën a dialogue sax mais mais li may wax du ma wax dialogue sax mais li may wax mooy covid bi bi mu dugg see Sénégal qu'est-ce qui s'est président Macky Sall deful fii un discours ne nous sommes en guerre mm-hmm. l'heure est grave Khalifa sol ay dàllam fekki ko pale Ousmane Sonko Ousmane Sonko takk dàllam fekki ko pale mm-hmm. Malick Gakou takk dàllam fekki ko pale ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. fu ñu mujjee xaalis bañ dajale li ci ëpp solo la jox rek euh, gorom mu wër di ci jënd ceeb di jox ku ko neex ak ku ko neexul. Mhm. donc ma ne bu nekkee ne. waaw euh, euh, koo xamante ne nii jar naa wóolu wala boog fi ngeen jaar la ngeen daan wax daa ngeen ko tënk mu demee noonu. kooku je pense que war ngaa mën a dialogue ak moom sans problème. d'accord. mais bu ñu demee ba nga xamante ni c'est Macky Sall qui en face nga am ak moom plusieurs expériences yoo xamante ni ay jaloog lay doon ay woote waxtaan lay doon te fu muy mujjee mooy daleen leen di tuur lëndëm je pense que bu boobaa. <laughs> dialogue boobu amu fa eh, eh, eh, amul importance te sénégalais yi comme nu ma ko waxee sànq li taxoon ñu voté leen ba ñu am sa nombre de députés là c'est parce que dañu nekkoon en opposition radicale avec le pouvoir alors euh, Aminata est-ce que mën nañoo wax ni résultat élection législative yi moo tax la mouvance